simile en tout cas pétrole bi day ak gaz bi la muy xeeñ neexul de déedéet tribune yéene kaay day gaa ñaa ngi lu jëm nag ci wàllu pétrole boobee ak gaz day mën la ëpp na diggante nguur gi la ak ñi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo kon la kàddu di génnee ci biir yi day war na tax ba gouvernement Macky Sall bi la nga xam ne ñi a a leer waaw loolee tax na nag ba fi day ngir di tuumal day ne yorin goo xam ne kon gu lëndëm ne kon musiba mbaa boo ko mën a day scandale ñooñee mën a dikk nag mën a leeral kon ne te gis nga loolee bu la waaw commission moo mën te ci lu jëm nag ci wàllu pétrole beeg gaz yi ah. la ñooñee nekk ñu ay bojo bojo déedéet parce que xoolal rek ku mel ni ku mi la ne Aly Ngouille Ndiaye day faux rapport la ko jox rapport bu baaxul ci lu jëm nag ci wàllum pétrole tim foofu

sénégalais yee ko moom mëne la tubaab yi moomuñu ko Thierno Alassane Sall waaye nag yàggatul barke Rasulaay wallaay yàggatul lii lépp léegi mu jeex parce que Macky mi lée day dem Macky jeexal na man Thierno Alassane Sall maa ko wax Macky Sall li mu wax yépp defu ci dara ba dara booloo jeex laa wax yorin gu sell am satu soo sidibé day ci évidence yéen waaw nee na Sénégal njaay day ma ngay dugg ca guuta di ma ngay déraillé di mardi itali Thierno Alassane Sall ci école yéen kaay ne suñu système bi nguur gi ni muy doxe waaw daa ni njiitu réew mi day ab yàlla rek maar day waaw waaw kenn amul sañ-sañ ne ko nii ngay doxe doxaleel ne waaw lii luy ndeyam sur saane xoolal ma seen wàllu kaaraange rek ñoom kilifa yi lu toll ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ci ay takk der ñoo yor seenu sécurité xaalis bi nga xam ne ñoom la ñuy ci ñoom ñi lee ah ëpp na yéen kaa gi ne en tout ministre tourisme day waaw dal di

mënuñu ko termine yéene kaay ne président gëm day la mën la wax ma nga doon jàkkaarloo ak lu tolloo juróomi téeméer ak ñeen fukk ci ay jigéen faamu gëm day ñoo doon lancé le réseau des femmes gëm bugaan ngay dani ne man day bis yàlla dogalee ma nekk président de la république diggée moom jeex na ci mim réew et puis sax nag moo xewi fukki poñ ak juróom-ñeent nga xam ni kon moom laa def ci sama téere bi du ay diggée engagement la na dara am na ñeneen ñuy désister ñu cay topp ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti candidat dañ dul matal parrainage ma ni léegi nga gis ñeneen bàyyi Mimi Touré yemu ca ndaxte envoyé spécial ba day waaw nee gis nga fichier électoral bi ñuy wax benn la tund kooto defaraat nañ ko ba mu baax rapport union européenne ba kay la man Mimi Touré nag li may wax ci Karim Wade bariwul Karim Wade leen gën a xam li lu waa wax falaa ne kaay ne fichier daaf alxames gii di ñëw la vox bi nga xam ne bi def na internet bi waaw fichier bi de tey la gën a boole tey la leen ah, day joxul loolu benn crédibilité Ousmane Badiane LD nee na opposition bi da koo leer ne dañuy ñàkk élection yi ñuy Macky de nees def nag ba jot kon ca fichier boobee waaw a lëmba daaf Mambay Niang ministre tourisme ci la quotidien yéene kaay waaw nee gis nga réew mi mën nañ fee dafalee lu ne ba mu des sàcc ay élection mënatul bi ñu jaglelee bi waaw Macky Sall ñi nga xam ni kon ay tojaange ñu dëkkee ci internet bi la fas yéenee geeral ba mu Dakar Times eh danañu voté loi ba tey de Macky Sall kay ay tànku Kim Jong Un la ne yéen ne te gis nga loi boobee bis bu jàllee day waaw ci campagne électorale bi day internet bi mën nañ koo bloqué de dama ne même yi laa la wax mën nañoo internet bi doolee doxul jàmm de looloo tax ba président Macky solo yéen i kaay ne gis nga nguuru xaalis mën naa dugal day i kaay ne port autonome de Dakar day waaw kër ga temps yi doxul de mais lépp la ñu yokk lépp a directeur fa ne situation bu délétère le port autonome de Dakar di dund fi mu nekk ni le tax na ba ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéey day jox nañu directeur général ba Aboubacar Sadikh Bèye jox nañ ko date de jox nañ ko bis de ba noppi woo nañu président Macky Sall ngir mu wax ca Vox Populi ne Aboubacar Sadikh Bèye day des efforts lancé na mouvement ma day day premier tour lay gagné gaay Marème Mbaye chargé de communication wu jigéen ñi ne ca port te sursa waaw nee na Sénégal émergent li nga xam ne moom le directeur général bi Aboubacar Sadikh Bèye di tiitaroo ko ngand ngandaloo waaw nee sama yëf la man Marème Mbaye ba ba muy lancé mouvement boobu kañ la les ko yéene kaay ak l'observateur ak laas waaw ne xiif ka day ñetti téeméeri junni yu tëgës ci ay njaboot day xiif ka ngi la ko defee fatu na de l'observateur ne te ab commando kay la fa yóbbu ngir ñu jàppale ko kontak yàlla Papa Sow Yékini Junior lay Pythagore Goro Sok ñoom ñëpp fekk nañu kon Modou Lo ca Espagne ge <laughs> lamb ju jara waajal la de en tout cas wàcc ma daan naa la wóorul ku dan da ngay féete kaw Balla Gaye Modou Lo 1 lay ne wala 2-0 boo paree ma la tëjal saar takkee ci kër gii di saar sàllu lépp lu jëm ci wàllu ko togg ak segg pétrole bi ci xëm Sénégal yéen i kaay gi ne kër gi di saar nag jatankuwu na loole def njàq rek tiitaange ca liggéeykat yi ak tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kilifteef ga ragal ne ëllëg ci biir mën nañoo dem ba mu yóbbee leen ñi ñàkk am xëy waaye tamit sedd léegi ci wàllu ko courant bi doon luy tàgga témbe Dakar tamit xëy jëm ak ñun ca pencum ndawi réew mu Sénégal jiitu fa loi bañ fa na ma wote ni ko novembre gile jëm ci wàllu ko bi ak jëfandikoo geek lu ko gën a yéwénal journal bi seetlu ne ARTP ña ngi koy doleel ci wàllu ko liggéeyam te loolee nag bu sottee nañu xam ne jëfandikoo gi ci wàllu ko internet bi benn ko yombal dootu ci amati mu def ci jàngat ne président Macky Sall kay aw na yoonu nekk ab di buur ak bummi kem naataangoom ba ci réewum Corée du Nord defee yéenekaay gi ne askan wi nag nañu xaarandi loi boobee bu ko pencum ndaw mi réew mi jàllalee ba mu sotti mën naa def ay njeexital ci élection yi ñu dëgmal ci xewum Sénégal ba lu bari a jàll waaye tamit bisub élection yi nañu war a jote njuréef yi tukkee ci mbañ gàcc yi du ni amee fichier électoral bi doon bataaxal bi ñu dëxëñ askan wi ngir ñi mën a amal seeni wote ci la namm xalimaam jëmale tey jii yéenikaay bi xëy dégtal ñuy gars yi Mamadou Diop Decroix yi ci àllu ne daañu yabal ñu seen xam-xam màcc ci wàllu wi ci daf ngir ñu saytu wàllu ko fichier boobee ana lan lañ ci dëxëñ yéenikaay a ji féewale na langue politique yi ci réewum Sénégal xëy yitteel journal bi di vox populi di ñu dégtal ay kàddu yu bàyyi ko ci ku ji gekk nguur gi ku ci nekk di andi aw lay jàpp ne nekk ci dëgg yi gi ne fichier électoral bi nag ba ñu ko dugalee ci internet bi ngir ku nekk war a mën a ràññeek setantal fan nga ci féete juróom-ñeenti fan ci weeru ko novembre ba ci suñ jonni yàlla tey coow laa ngi ne cobbay waaye ku jëkk politique gi moom mi ngi yuuxu ab sàcc bu mu gisagul nguur gi jàpp ne ñooñee doon ay noonam ci wàllu ko politique daal dañoo ñàkk ba noppi bëgg a ñàkki ku a war ci ay tuuma bàyyikoo ci ministre Mame Mbaye Niang mi xam le ne Mamadou Diop Decroix ak képp ku mu bokkal ku jëkk politique yi dara terewu leen a nelaw lu dul meññeef yi feeñ ci suufu Sénégal diggante pétrole bekk gaz bi ak yeneen yu ci aju te sax wax ji mooy ñoom ku jëkk politique googee am na ay borom barke ki këru liggéeyukaay yu mag yu nekk ci àdduna bi yu leen ngemb tax ñi dal ci njiitum réew mu Sénégal te nag jot nañ ci ay koppar faw ñi jëm ko resal taxit nag ñi singili Macky Sall ba mu jaral leen ñi tasaare mu Sénégal nag njàmbat li bari na sàkkum karange ngelam lac rek ñi boom bakkanum nit te fel la dul mujj moo ne day jàng nañu ci yéenekaay gi di source a lu toll ci ñaar téeméer ak juróom benn fukk ci ay nit yoo xamante xaraj nañu lool ci wàllu ko karange ak nañuy aare doomu aadama ñu leen teg ci wetu ay kilifa yu mag fii ci réewum Sénégal yu ñu ne kon dañuy liggéeyal réew mi ngir ñu sàmm seen wàllu ko karange ba aw yoo bu leen tim dinaaw sax ñi daal di koy wàccee loolee nag doon ay koppar ak alalu askan gi nga xamante ni moom lañ cee tàbbal ñu fekk ci réew mi quotidien ay ñaawteef yu mën a yokk jot wér-gi-yaram mu ko askan wi tollu ci téeméer ak fukki carton ba ci xeetu sine a yamba ñu di ko xayma ci téeméer ak fukk ak juróomi kilo doon li ñu teg loxo jàpp defkati ñaawteef yi koppar yi dem ba ci juróom benn fukki million ña nga ci tàggat yaram Guinée équatoriale ak Sénégal seen ndaje mi samedi lay doon fukki fan juróom ñaar ci weeru ko novembre record yéeni kaay ni gaynde yi naka tàmbali nañoo teerte ca Malabo waaye a site ak ama ndax dafa mënul nekk am déet ne waa axlu làmb ña ngi koy sàkku te lu ni mel te na antu ba tey Assane Top jërëjëf diplomatie religieuse demlante ci njëkk worm cër ak jàmmo ci biir électoral bi doonatul kumpa yëf yaa ngi ci internet bi le quotidien nañu ministère intérieur moo jël dogalub jël fichier bi def ko ci internet bi ngir bëgg ñi séq géopolitique beeg askan wi ku ca nekk mën a xam la ca nekk journal bi nañu waaye waa front résistance nationale ñoom seenum xel tey na ci yëf yi ba moo waral alxames ji di ñëw nee nañu daa ñu wut seen i maanaam i expert yónni leen ca daaf ngir ñu dem càmbara leen yëf yi vox populi nañu keroog àjjuma la ñu dugal fichier bi ci internet bi ci surtout gouvernement bi waaye mbir yi saafara su jur jàngoro la nar a doon ne ñu bari ci ñi séq géopolitique bi seeni gis-gis da caa wuute ñu gis Aminata Touré mi jiite pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar mi ngi xëy di waxtaan ak waa enquête dina kay nee na leen ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti candidat yi sampu seen dënd ne dañuy bokk ci présidentielle yi 2019 yi ñuy dégg ñenn ji rocceeku ndànk-ndànk ñoo ñey rocceeku dañoo njëkk a rek dañoo njëkk a yëglu waaye ñeneen danañ rocceekuwaat mu ne leen rek mooy seen yitte jamono ji ñoom ñi ànd ak Macky Sall moo di fexe ba président Macky Sall faluwaat jiitewaat Sénégal déggaat son excellence kii di ci ay waxam ndax Karim Wade xam na li mu war a def premier ministre Sénégal ba woon di Aminata Touré yamu ca jox na waa enquête xalaatam ci àndub Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko gi ñuy dégmat si Mame ministre du tourisme source a nee nañu yëkkati na ay tuuma yu rëy te diis teg ko ci ndoddal opposition bi nee na ci réew mi am na fi opposant yoo xam ne ay nit ñoo nekk bitim réew di leen ngeen bakka xam ngir ñu yàq réew mi waaye loolee ña leen ko sant ak ñoom ñañu ko sant dañuy sonal seen bopp rek loolee ñuy jéem guddal mbayum noor la du ma opposition bi moom ministre Mame Mbaye Niang ci gën tuuti nee coowal exploitation fer bu Falémé gi ñuy ngawtu ngawtee mbambu ci réew mi dañoo bëgg wax rek waaye ci ñum opposition bi am na ci ñaar ñu ñëwoon àndoon ak seeni groupe ngir bëggoon a gañe marché bi leneen coow lu lëmbi dëkk bi di contrat d'affermage bi ci wàllu ndox mi Mame Mbaye ne état bi xam na li tax mu tax Suez ndax Suez 298 lay jaayee mètre cube bu ndox bi ci jamono cinquante milliards maanaam ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk am na ci contrat bi doxoon ci diggante SDE ak état Sénégal Sénégal bor yi mu amee bor yi ñu koy toppee téeméer boo ci jël juróom fukk ak ñeent maanaam cinquante quatre pour cent yi nguurug Abdoulaye moo ko fi bàyyi Mame Boye Diao directeur fiscaux régionaux moo ko wax wax jaa ngi ci xët mu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi nañu Diao Kolda di Mame Boye dañu ko invité woon keroog ca rajo Sud duñu danger ci moom moom Macky Sall laas yéenekaay xëy na ko mu ngi ci xët mu njëkk yéenekaay bi taxaw dend ak Augustin Tine ministre forces armées dend ak i soldat ñu tiimandoo ay fital ak i mété laas yéenekaay nañu keroog la woon ci bëccëg gi ñu jagle leen armée bi ñi nekk ci internet bi te duñu fa def mukk lu jaadu ñooñee le président Macky Sall fas yéene geeral guerre bu saf sap nee na waratuñoo bàyyi benn yoon ñaawte fu ni mel di sëxin ci réew koy xeex te nag ci pouvoir ñu koy tàmbalee l'observateur nañu ca Paris ga mu ne woon moom Macky Sall na fa opposition bi bu baax a baax baax wax nañ ne président de la république dem cim réew di fa def ab visite am ñu jóg di saboté visite ba loolee duñu ko mayiti kenn duñu bàyyi kenn di ko defati léegi ku fi wokkee danañu la xuri l'observateur xamal ñu ci xëta mu njëkk ne deuxième édition ndaje mi ñu naan African Leadership Awards gi ñu doon amal ca Paris ndam lu rëy la Mbagnick Diop ma ko organisé woon jaarati na fa mu daan jaar Youssou Ndour ñëw ne ko dooma ko dàq dóor fa spectacle bu rëy te toj Thérèse Faye toj na fi ubbil la Sénégal yi coordinatrice nationale bu COJER bi di Thérèse Faye xëy na maam Adama Gueye ba xolam sedd nee na li maître maam Adama Gueye di def solo dàllam kër opposant bu nekk mu ne fa naam daraame ñàkk xam fu mu jëm ak bëgg fu mu jafandu moo tax mu koy def nekku ne yëgoon na ne maître maam Adama Gueye nee woon candidat la ci présidentielle yi 2019 yi ba mu demee ba ci biir xamal boppam xel ne munuta am mbooloo mu ko pare ne ca la ci génnaat ba set wecc léegi nag li muy def moo di di wër ñi ci bi di leen jéem a pekk ak a peer njaay Thérèse Faye ne maître maam Adama Gueye loolee muy def ay caaxaan la ay sociaux yi du sore ci wàllu politique coordinatrice nationale bu COJER bi di Thérèse Faye ne gaa ñiy tëbaka dal dara yëngalu leen dara taxu leen di tëbaka dal lu dul pétrole ak gaz bi ñuy dégmati ci réew mi waaye loolee moom nañ ca noppal seen bopp député Seydina Fall di Bougazeli nangu na loxo bi ko Alioune Sall tàllaloon ca Géejawaay xibaar baa ngi ci l'observateur nee na li jaadu mooy mu nangu loxo bi ñu ko tàllal dem wuy ja ca woote ba ñu ànd liggéey ndax ñoom ñoo bokk lu ñu di falaat président Macky Sall te moom lu ne daj na ko kon bu gisee kuy liggéeyal Macky Sall taxaw woo ko ngir mu ñëw jàppale ko da cay dem mu ne Aliou Sall bu dee li muy woote dëgg la ci moom rafetlu naa ko li ma dul nangu kay mooy ku may këll-këlle wala ku may dugal ci caaxaan ginnaaw demee na nii nag dinaa gën a yokk góorgóorlu am naa 6166 parrain te leer na ma ne laata ñuy yegg ci fukki fan ci dana am lu toll ci fukki junni parrain mu teg ci ne jamono ji ma ne tekk te xam ne le lion de Guédiawaye dellu si na